def ko chef des armées moo war a jël matuwaay bi benn sénégalais daraam du yàqu benn sénégalais du faatu te daañu àttee Ousmane en tout cas newoon na li fi amoon dootu fi amaat ndax loolu mën nañu njort ne que ni parce que sénégalais bi aujourd'hui sénégalais lambda bi xëy na mbirum Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Niang yittelu ko mais euh, nekkin wu baax ci Ndakaar bu xëyee mën a ki mu ne la dama la yóbbu ci yoon mais sëñ bi boo yoree preuve dama yóbbu ko mhm. su ko defee boobaa waaye wax sa tooxi doon ba pare nag bëggal woo doomi jàmbur yi ne kaay leen dee ngir duñ ma àtte mais sëñ bi loolu jàdduwul rappelé wu euh, bi bi benn bis benn yor-yor mu taxaw naan gendarmerie dimbali leen ma yóbbu sa bàyyi sama doom mu dem jàngi pendant ce temps mi ngi woo doomu jàmbur pour ñu faatu ngir moom. alors que moom moo newul ci dëgg mais sëñ bi Sénégal lañu waxoon maintenant nag li xaw a doy waar ci réew mi. dafa Sénégal yi fenn wu leen neex moo leen gënal dëgg gu leen di jariñ mhm. journaliste yi ñemetu ñoo wax dëgg Ousmane Sonko sëriñ si ñemewu ñu wax dëgg Ousmane Sonko ñu am ci rax na nga gis ay ilimaan yoo xam ne moom man jàpp naa ne moom saytaane la ñu war a jiite waaye waruñoo jiite jullit. alors loolu dina ci ñëw mais répression lañ jàpp ne la dund ñoom Ousmane Sonko ak ñi ko faral ay arrestation euh, yoo xam ne kenn xamul. nu mu ay ay dossiers yu ñu ay. ku jug ko. mu mel ni dañu nekk di dal wala di complot un potentiel candidat bokkuñu bokkuñu kenn plainte wu la Adji Sarr porté wu la porté wu la plainte bi yow porté wu ma plainte bi yow parce que demoo Suisse ba te demuma fa. moom moo fa doon dem moom lañ porté plainte ndax def na wala defut c'est son problème par contre li mu wax nun waa Sénégalais yi dara du ci dëgg ndax nee na doon faju ji ñooñu du ñu faj nee daa mu doon xaalis jëru ko woon parce que cinquante mille francs yam may aji saar noonu ci am cinq séances mhm. bi ci def mooy assemblée nationale mooy fayal député buy def lu mel noonu mhm. vingt quatre vingt pour cent bu dee boobaa vingt pour cent lay far complot bi waa opposition front national de résistance ñoo ko ne ne jiiñal deuxièmement ci mbirum ma mbay maintenant su fekkee ne wax na dëgg ah suba nag wax dëgg yàlla dina leer lim ne am na ko document yim ne yor na ko di bàkku na génn gi sax weesu na ndax ba mu ko waree génn ça entre le 4 et le 5 janvier 2023 loolu la ko waroon na génne te génnewu ko su ko defee pour mu mucc ci condamnation du yomb mais Mhm, légitime aussi quand même euh, sorte yi nga xamante ne ne euh, Ousmane Sonko mu ngi koy def pour euh, un peu résistance parce que bu ñu xoolee aussi tam le président Macky Sall dafa mel ni bu fekkee ne da ko bëgg a sonal gis nañ ko ci cas Karim Wade gis nañ ko ci ah Khalifa Sall nekkoon ay opposant est-ce que tey mhm. moo porté plainte Ousmane Sonko waaye du Macky Sall waaw loolu moom werantewuñu ko jeex na mbirum Mambay Mambay moo porté plainte Ousmane Sonko waaye yoonu Macky Sall ko ci maintenant ndax Karim Wade Khalifa Sall la ñu leen defoon moom lañ ko bëgg a def mm-hmm. en tout cas moom de bu ñu ko bëgg a def mi dimbali ñi ko bëgg a def mm-hmm. parce que nag moo wàccook yoon di ji nit ñi foo toll te li ngay wax dara du ci dëgg mm-hmm. sëñ bi loolu dafa jaaduwul mais nag Sénégal moo àgg ci réew mi damay dem ba est-ce que Sénégal gi neppe sunu réew moo xam ne dem nañ ba wax lu dul dëgg moo leen gënal euh, dëgg gu leen di jariñ di farak nit gëmm seen bët duñ li ñuy wax duñ ci ànd ak sago. mais y' a trop de laisser aller y' a trop de laisser aller boo xamante ne nemmeeku nañ ko. waaw euh, ah, moo parce que aussi tamit euh, bu ñu bu ñu fàtte aussi tamit euh, ñu ci bëri dafa am benn rapport de manque de confiance bi am entre sénégalais bi ak li leen di justice bi. d' la raison pour laquelle aussi tamit. ñu ñu ñuy rap riposté ko Fatima Fatima surtout sénégalaise moom laaj nañu xoolaat ko baax a baax waaye ci mbir yii. Mhm. plainte Adji Sarr bi. ak plainte Mame Mbaye bi. wax dëgg yàlla pour le moment li justice def rek la war a def. d'accord. alors ci nga baal ma ko euh, Ousmane ko ci déclaration am léegi léegi dafa wax ne euh, juge bi koy euh, condamné ci mbirum affaire Mame Mbaye Niang juge boobu ennemi la wala ennemi parti bu wala formation bi mu bi mu jiite la alors kaddu yooyu naka nga ko jàngatee est-ce que aujourd'hui kon sunu justice bi war waruñu waruñu xoolaat bu baax a baax peut-être ñi koy jiite ak yenn décision yi génn. benn benn juge rek mooy baax ci Ousmane ko mooy jabaram. déedwaay waaw ah, bu ñu ko wutul bu ñu ko nee wutul jël sa jabar mu àtte la boobu justice rek mooy baax non day caaxaan rek xam nga dafa yomb ngay décrédibiliser la justice dafa yomb ngay victimiser wu. il a accusé ma mbay ne am na document bu ko taqal bu yóbboo document ba bu ko yóbbu woon te yamono yu mu ko waroon a yóbbu bu demee kenn du ko condamné kon na bàyyi victimisation bi na bàyyi gor yi muy jiiñ di leen tam dëmm na ko teg fi suuf loolu du ko ci génne. alors parce que nag Ousmane Sonko bu jàppee ne mën na mën naa jaar ci kaw armée gendarmerie police du Sénégal. pour am li mu bëgg day nax bopp alors ci ci ci kàddu yi mu yëkkati léegi mu ngi xam ne nii li tax mu ne moom wóoluwul euh, juge bi mooy objectif bi nga xamante ne moom la ñu am ba sukkas ni ko en ce moment ci dossier bi mooy xañ ko mu nekk candidat. ci ah, la waxoon xam nga bañ ko waxee mbirum Adji Sarr loolu la waxoon ne Adji Sarr dañoo bañ ma bëgg du ma moom moo ne ma mbay. mais mais ni ñuy baralee ay. non xam nga ma baral xam nga xam ni bu dugg ci yooyu élément de langage yooyu politiciens di def di leen ko jox ba bu leen ci dugg parce que da di lëndëmal xel. laaj la laaj la déglu moom moo ne yor na document IGE buy takkal ma mbay ci 29 milliards. moo ko wax. Mhm. Sénégal yi ko dégg mu dem dig ne non IGF e laa wax. ma mbay ne ko nee na ko document boo indi baax na rapport boo indi baax na. na nga indi rek na nga indi di eh, jamono indi nag weesu na. parce que le 4 ou le 5 janvier la waroon indi. Mhm. indi wu ko. d'accord c'est-à-dire la la wokk ña nga xam ne ñoo ñoo jiñoon ma mbay loolu dana ko xuri bu demu daal dañ ko def tamit naa bu ko condamné rek juróom benn euh, weer ci dem bi wax na ci nee na fois suba incha allah dina dem mais mu ngi woo ay militants am ñu ñëw soutenir ko ci tribunal bi ndax li ñu li amoon weerub mars ça ne risque pas de se produire. non non non non incha ko yàggal wax mooy li ma la wax yow yaa ngi jiñ sa moromu gor ne yow. jiñ ko lu toll ne 29 milliards ne da koo détourné mu wala tribunal nga naan kaay lañ ko c'est-à-dire il faut à la violence pour génn ci c'est-à-dire doomu doomi jaambur yi la bëgg a jël ñage ko jëmmam. maintenant là je m'adresse aux parents. ku ci sa doom dee dee na ci Mali foro et je m'adresse à la justice. mineur bu ñu jàppati ci manifestation yi nañ jëli baayam ak ndeyam tëj. parce que après ah, parents yi lu ñu ci. non c'est leur responsabilité. Mm. ab xaj sax boo ko yoree bu matin yow la jàpp. asama doom joojur. mais est-ce que finalement kaso yi du bëri tamit. bu fekkee noonu a un million de personnes. ñu ngi calculer lu ëpp ci presque. bu fekkente ne un million de personnes la ñu war a tëj. politique ngir sénégalais yi am jàmm. Mm-hmm. nañ tëj un million de personnes pour sénégalais am jàmm. Ousmane Sonko moo néewul ci dëgg ci mbirum Adji Sarr moo néewul ci dëgg bii nag encore moo gën a garaaw moom parce que bii moom moo wax di bàkku naan gars yi xamuñu fu ñuy jëlee document yi yooyu ñun yëpp lañ yor alors que yorul dara mu dem Kër Massar naan ci internet laa ko gisee. gis nga document boo gisee ci internet ni wax wax ni diw yow da ngaa détourné loolu mooy <laughs> diffamation. mais mais mais mais président yaa ngi koy wax léegi bu ñu ko condamné euh, six mois euh, day dafay dafay dafay perte ay ay droits civils am. imagine imaginez. Euh, une élection présidentielle sans Ousmane Sonko. ñu génnee ko ci loolu est-ce que. bu ca génne moo ca génne boppam kenn génne wu ko ci Mohamed li mu a def ci réew mi baatu wolof yi da baatu boo ne ñu génne ko ci. waaw day dëng da nga naan mu génne ci boppam. waay mm. waay est-ce que dañ ko leel sukkar ne waxal ma mbay daa détourné xaalis. déedéet est-ce que ma mbay du doomu sénégalais comme moom. ñu ji takkal ko der bu takk yàq dërëm bu toll ni détournement de 29 milliards. Mm-hmm. te gis nga détournement deniers publics. Mm. ni mu naqaree askan wi yàlla a bañ kon encore une fois Ousmane Sonko moo nekkul ci dëgg moo jiiñ ab nawleem ne moom ne dafa luubal alalu réew mi su yoree preuve na ko wane. su dañ ko condamné. bu ñu ko condamné la ko dal moo ko teg boppam. kenn président finalement daa mel ni da nga contre naka Ousmane Sonko. bu ñu déggee euh, ba may wax ba xam nga lan laa jëkkee. Uh-huh. dama ne la lu ma fi wax yàlla nekk dëgg tam uh-huh. weesal naa sama bopp may contrer nit. Uh-huh. waaye li ma fi wax lépp bi ma duggee fii ci léegi. lenn rek laa ci sàmm mooy di wax dëgg. dëgg gën a bu dalee ci kawam mu saf-saf bu dale bu dalee ci keneen kooku mu saf-saf ci kooku rek parce que dëgg neexut Sénégal yi ne dañoo mel ne yow sooy wax dara au ñu di la déglu au lieu ñu xool li ngay wax dañ naan non da ngaa contre diw mm-hmm. lu ma koy contrer contre ma ko parce que dëgg nag dëgg laa faral mm-hmm. li ma fi wax lépp amul benn baat bu ci bu ci mën a dindi mm-hmm. loolu moo ma ndax nit ñi la ñuy wax naan daf koo contre